laa xawla wala quwwata illa billah al ali al azim mbokk yi ñu ñëw yéen suñ fimtee mi luxatul arabiya ñu ñëw yéen ci darsu juróom ñetteel bi ak darsu saamin darsu juróom ñetteel bi darsu juróom ñetteel bi nag commencement bi lu mu bëgg jàngal mooy mubtada xabar mu ne haza rajulu góor gi taajirun commerçant la هنا هذا مبتدا الرجل اسم الرجل بدل التاجر قبله وذلك الرجل الجرجر طبيب دكتورة اسم التاجر تركم سعبي محمود محمول له واسم الطبيب تو الدكتور سعيد سعيد له هذا البيت كالجيل التاجر يلا كما سعبي وذلك البيت أكل للطبيب يلا دكتور bay tuttaaji ana bay tuttaaji ko commerçant bi amaama al masjidi mi ngi si kanamu jàkka mi wa baytu tabibi ko docteur bi xalfal madrasati mi ngi si ginnaaw école mi li man haasi sayyaaratu kan moom oto bi man tilka ak kan moom moo bi li tabibi ñenn docteur bi wa tilka ak oto bële li tuttaaji ñenn commerçant bi haasi sayyaaratu oto bi ñenn yaabaan mi ngi jóge ko yaabaan wa tilka ak oto bale min amerika mi ngi jóge amerika tamarin ay jéemantu bu dee dafa tamarin rek xamal du benn jéemantu kese ay jéemantu la waaye bu ne tamin xamal ne kese la tamarin ay jéemantu ajib tontul anil asilati l ateeti si laaj yi di ñëw laaj yi di ñëw yow man haza rajulu góor man haza rajulu góor gi wa man zalika wajulu ak góor gële kanda yaay wax nga ne góor gi nangam la nga ne góor gële nga nga tontu ko ma ne maa ismu taaje la mooy tuur kama saabi la mooy tuur kama saabi tontu ko nga wax ko tuur kama saabi basmu tabibi la mooy tuur docteur bi tontu ko nga wax tuur docteur bi ne min ayna sayaltu tabibi ana oto docteur bi ah, min ayna sayaltu taaje ana oto commerçant bi yëpp yaa koy tontu bu nekk lu mu la naan nga tontu ko si ana baytu taajir ana com ana këru commerçant bi ana baytu tabib ana këru commerçant bi ana baytu tabib ana këru docteur bi daqa jàngal waxtu sanga bind hazal waladu xale bi xaalidun xaalid wa zalikal waladu xale bële muhammadun muhammad haza rajulu góor gi mu darisun jàngalekat la wa zalika rajulu ak góorgële moo indi suñu ingénieur hazal kitaabu téere bi jadidun bees bi wa zalika kitaab ak téere bi la qadimun yàgg la hazihi sayaaratu oto bi li aliyin ñeel na ali wa tilka ak bële li xaalidin ñeel na xaalid hazal baab bunt bi maftuxun nun ibbi la wa zalika al baabu bunt bële muxlaqun nun tëj la li man hazihi saatu kan moom moom montoor bi hiya moom abbaas ñal abbaas haazal baytu ahkam gi li tabiib ñal docteur bi laa déedéet hoo moom lil mudarris ñal jàngalekat bi ah, mu ne kon fi mu ne bëgg jàngal jàngoon nañ ne tur góor bu nekk ñaari masque lay am waaye tur jigéen bu nekk benn masque am mu man haazal waladu xale bi kan man ne haazihi dawaajatu vélo bi azib dafa jotul ndax vélo bi yemnul ma azini ñeel na doomu noddukat bi ndax am man haazal waladu man bi kan la woo moom taaliban taaliba la min asini bu jógee koo siin azaalikal baytu ndax kër gële laa déedéet woo moom xadimun yàgg la jiddan lool hazi sayaawatu oto bi nel yaabaani mi min amerika ko amerika hazi sikkin paak min almania mi ngi jóge ko Allemagne wa tilka paaka bële min wa tilka melaqatu ak kuddu min Angleterre mi ngi jóge ko Angleterre ko jàngal misaal ateete misaal yi di ñëw suma nga changé jumla ateet jumla yi di ñëw moom ne haza haza li kitaabun téere la danga koy changé nga def haza kitaabu téere bi li Muhammad yi ñeel na Muhammad xam nga boo ne haazal kitaabu la li Muhammad yi ñeel na Muhammad loolu du jub waaye boo ne haazal kitaabu li Muhammad yi ñeel na Muhammad moo jub waaye la li Muhammad yi ñeel na Muhammad loolu du jub fekkee ne haza kitaabul loolu bu dee moom sunu bëgg waxee jubul waaye bu dee ci langue arabe la jub na ne haza haza kii tabibun la defal defal comme nu la defee fii nga ne docteur bi ñu ngi jóge ko hindi hazihi hazihi lii sayaatu oto la defal say oto oto bi ñen na directeur bi nil mu di ñen na directeur bi ne zalika wala do xale bële im zalika kële wala do xale la im nul mu daal si doomu bi defal ah, defal xale ba leen doomu jàngalekat bi daal tilka tilka lele saatul montoor ne suweesi ñuy jee ko suweesi defal montoor bale ñuy jee ko suweesi haza li baytun kër defal def ko def comme nu mu la waxee haza kitaabu li Muhammad nga ne nga ne euh, kër gi ñeel na ingénieur bi haza li qalamun big la defal big bale ñeel na ab zalika lere rajulun góor la mu azinu noddukat bi defal góor gële defal góor gële noddukat la asi lii baydatun nen la defal euh, nen kabirun bu mag defal nen bële nen bi lu mag la zali min diini mouchoir la euh, wasaqum bu tilim defal mouchoir bi bu lu tilim la asi lii xaqibatun saag la li mudaari si naan la jàngalekat bi defal saag ba saag bi ñeel na jàngalekat bi yem na danga koy def comme moom la waxee hasa kitaabu téere bii li Muhammad yi ñeel na Muhammad yëpp noonu nga koy defee yaqawa jàngal al misaal ateetu misaal yi di ñëw suma kawen topp nga fahme asilatan ay laaj wa ajuban wa ajubatan ka tontu mislahu comme moom liman hasil kitaabu ka moom moom téere bi li Muhammad yi jox misaal dalaa laaj ne kan moom moom téere bi ma tontu la ko ne la téere bi ah, ñeel la Muhammad noonu nga koy tonte daf laa jox bi ak caabi ak kii oto ak nag mu nga yow dangay wax ne kan moom moom kan moom moom big bi nga tontu ne big bi ña la ba ah, big bi ña la baas nga waxaat ne kan moom moom caabi ji nga tontu ne ña la caabi ji ña la Ali mu jox la oto mu ne la kan moom moom oto bi yaa ko tontu nga ne oto bi ñeel na directeur bi xam moom nag bi nga ne nag mu jox la saak ak chaise ak ganaar euh, ak monto ak kër ak nag yaa koy defal sa bopp noonu la ko joxee misaal taamal seetan salaan al amsilatul aatee ci misaal yi di ñëw ne al baytu kër gi fii baytu ci biir kër gi minel baytu jugee ci biir kër gi ilal bayti jëm si kër kon boo bëggee wax lu nekk ci biir fii ngay wax waaye boo bëggee wax jugee ko nangam ah, min ngay utiliser waaye boo bëggee wax jëm si nangam ngay jëfandikoo ilaa waaye nag jàng almustasfa mooy fii hôpital fil mustasfa si biir hôpital bi min almustasfa jugee si jëm si hôpital bi Amerika si Amerika si biir Amérique ah, min Amerika jóge Amérique ila Amerika jëm Amérique Almaniya Alman Alman fi Almaniya si biir Alman min Almaniya jóge Alman ila Almaniya jëm Alman iqra jàngal waktub tanga bind هذا طبيب دكتور من انجلترا من جوكا انجلترا من جوكا انجلترا ذهب دم حامد حامد الى فرنسا جم فرنسا محمود محمود man maa ngi doon aji feebar la xoo min fil mustashfa ci biir hôpital bi Zahra Abdullahi jaamu yàlla min Almaniya jee ko Almaañ ilaa Angleterre waa jëm hazal kitaabu téere li Musa ñel Musa hazal muhandis isniya bi min Amerika min jee ko Amerika iqra jàngal sabuwatu ma fi table أمام الطالب من كانوا طالب وهي moom xalfal madrasati mais xalfal madarisi mi si ginnaaw jàngalekat bi ayna saya ayna sayaatul madarisi ana oto jàngalekat bi yee moom amaamal madrasati mi si kanamu école bi ayna baytul imam ana koy imam bi baytul imam koy imam bi xalfal masjidi mi si ginnaaw jàkk ji ayna kon amaama mooy fi kanam xalfa mooy fii ginnaaw ayna jalasa fala ayna jalasa xaamil xaamil fala toog jalasa toog na xalfa mahmudin ci ginnaaw mahmud zaba dem na amaar na amaar ila masjid jëm si mu toog amaam al mihraab bi euh, si kanamu minbar al mihraab mooy fii minbar al kalimaat al jadidatu bari bees parce que kenn paakan Allemagne waa Allemagne France France waa France Angleterre waa Angleterre ama ma kanam xalfa ginnaaw Suwaysi Suwaysi Suwaysi dëkk la addasu taasa ñëw si dasu juróom ñeent ñëw si dasu juróom ñeenteel bi mu ne man haza rajulu man haza rajulu góor kii kan la moom moom Abbas Abbas Abbas Abbas taajun kame saala Ah, Abbas Abbas Sadio commercial ghaniyun bu kooman kooman mooy ku riche ku am mooy ku riche Hamid Hamid Hamid mudarris jàngalekat la Hamid Hamid mudarris jàngalekat la jiddu bees mu ne ma haza li àll haza li tufaax pom la ak tufaax pom bi faakaatun fii la lazizatun bu neex ma zalika lele la zalika lele wasfoon picc la ah, zalika lele wasfoon wasfoon picc la al wasfu taa'irun picc la saxiirun bu ndaw al arabiyatu arabiya lugatun lang la sahlatun bu yomb al arabiyatu arabiya lugatun lang la jamilun bu rafet amaarun amaar jamilatun bu rafet amaarun amaar taalibun taalibe la mujtahidun góorgóorlu wa mahmudun ak mahmud taalibun taalibe la kaslaanun bu teel man anta yow la kan ana man taalibun taalibe la أنت دخل طالب طالب جديد بس نعم أنا من طالب طالب لا جديد بس تمام أي جمنت يقرأ جانجل وكتب تنبين محمد محمد طالب طالب لا قديم بياغ ذلك الرجل دخ جوجل مدرس جانجل كله جديد بس لا جديد هم طبيب دكتور جديد بس هذا هذا الدرس درس به سهل يوم بلا عباس عباس taajowon kamar sala shahiin bu siw bilaalun bilaal muhandisun ingénieur la kabirun bu mag al inglisiyatu angale luxatun angale saabatun bu naqadi saabatun bu naqadi a ganiyun bu komal laa déedéet anaaman rajulun góor laa faqiirun bu ñàkk alqahwatu qahwa alqahwatu qahwa madinatun madinatun dëkk la kabiratun mag ana a anta ndax yow madarisun jàngalekat la qadimun bu yàgg daa déedéet ana man madarisun jàngalekat la jëriñ bees xaamidun xaamid taalibun taalibe la kasaanun bu tayal daa déedéet xamam taalibun taalibe la mujtahidun bu góorgóorlu daa tegal fil fawaaxi ci barbiya ci fi jumla aatee ci jumla yi di ñëw naatan naat munaasaba bay ak dépôt naat moom munaasaba bay ak dépôt xadiijatu xadiij taalibun taalibi la foofu danga fay teg naat foofu danga fay foofu danga fay teg naatu bu tëpp bu dëpp jumla bi xadiija xadiija taalibatun taaliba taalibun taalibatun taaliba la foofu teg fa naatu al arabiyatu arabiya lugatun lang la teg fa naatu attafaaxu pomme bi faakihatun siwila teg fa naatu Muhammadu Muhammad tabibun docteur teg fa naatu anta ndax yow taalibun taalibe foofu yaa fay teg naatu xaalidun xaalid taajun kama saala yaa fay teg naatu alxusfur picc mi alxusfur usfur taaun picc la teg fa naatu ana man mudaris jàngalekat la teg fa naatu al ingilisiya al ingilisiya anglais loxatu langue la teg fa naatu alqaahiru qaahiru madinatun dikk la teg fa naat daa tegal fil fa fil makaani xaal yi ci barab yu weeti fi jumle aateet si jumle yi di ñëw manuutan manuut munaasaba bay ay dëppoo fële naasu nga wax mu teg nga fay teg waaye fii manuut nga fay teg al arabiya te arabiya foofu teg fa naatu amaar amaar na xani koomal si diggante bi teg fa naatu faysal faysal kasaanu butayel si diggante bi teg fa naatu ana man qadimun yàgg laa teg fa si diggante bi naatu haza haza li maximum nuñ damm la teg fa naatu man man sukun nga fay teg iqra jàngal kasaanun ku teel jawaanun ku qifatshaanun ku maw xadbaanun aji fees ana jawaanun aji xiif laa anta ndax jawaanun xiif ku laa déedéen ana man atshaanun ku mal لماذا أنا منعتش عنهم مرة لماذا المدرس لما جعل كلبي غضبان اليوم هم يعطي الكوب الكوب الكوب الكوب كاسبي ملآن أجفاسا الكلمات الجديدة باديو بيسي اللغة لانغ الطائر بيتي جوعان غضبان كما شهي سيو اليوم تي عطشان كما العصفور عصفور المدينة مدينة كسان كتال ملآن ألفيس اليوم tey baat yi nga xamante ni yaa ngi soog di jàng lan la koy waxal waxee al kalimaatu jadiidatu jàpp na baat yi yaa ngi soog di jàng si téere boobu ay lan ma doy so ana jàngalekat bi moom moo fil fas mi si biir classe bi ba ay na mudarrisu ana jàngalekat ay na mudarrisu ana jàngal ak ana jàngalekat bi aljadid bu bees bi moom àndal mu diin si dooteem ay na taalibu ana taalibe bi aljadid bu bees bi zahaba dem na ilal maktabi zahaba zahaba dem na ilal maktabi jëm si bureau ah, bi man zalika keneen man zalika rajul góor gi kan ak tawilu bu njool mi allazi ka nga xamante ne xaraja génn al aan léegi mi na madrasati jóge si école bi moom moom al mudir directeur bi al jadid bu bees waman waman waladu waman waladu ak xalbal kala saxir bu ndaw bi allazi bi nga xamante ne xaraja génn al aan léegi mi na fas jóge si classe bi moom moom ibnul mudir doomu directeur bi la al jadid bu bees liman tilka sayaatu kan moom moom oto bale aljamilatu bu rafet bi hiya moom lil mudiri ñeel na directeur bi aljadiidu weesu ne man haazal kitaabu kan moom moom téere bi alkabiiru mag bi huwa ndax moom lil mudarrisi ñeel na jàngalekat bi laa déedéet huwa moom di taalibi ñeel na taalibi bi aljadiidu weesu ana milaaqatu ana kuddi bi asaxiir bu ndaw bi huwa hiya moom fil koobi ci biir kaas bi أنا أنا أنا أنا كوسي أنا شيز مكسون أنا أنا كوسي أنا شيز مكسون المكسور بالدم هو هناك من فلان bu waxee hunaaka mooy fële waaye huna fii la ay jéemantu iqra jàngal oksub ta nga bind tabibu docteur bi al jadidu bees mustashfa si bi absa bi wa tabibu xadima ak docteur bu yàgg bi nag fil mi si bi mustashfa mooy fi hôpital waaye mustawsaf clinique lay firi alxalam bi mag soo nuñ damm la alal maktabi ci bi almiwaxatu vantunu aljadidu bees bi fil xufati min ci aljadidatu bu bees bi fil xufati min ci biir saal bi alkabiratu bu mag bi alluxatul arabiya langue arabe sahlatun lu yomb la alwaladu xale bi tawilun ku njool la allazi tawilu ku njool la allazi ma nga xamante ni xaraja génn na mina fas jógee si classe bi alaana léegi moom taalibun taalibe la minal hindi bu jógee koo hindi ana man fi lmadrasa sawiyati maa si Ah, école bi ñuy defee ba zahaba dem na awajulu góor gi faqi al faqi ku ñàkk bi ila ku ñàkk ilal wasiri jëm si ah, ministre bi jalasa toog na a taalibu taalibe bi a jaridu bees bi xalfa xaamid si gannaaw xaamid parce que kenn paaka bi kabi alkabi bu mag bi xaa dund ñaw la jiddan lool man haasel waladu xale bi kan la asaxir bu ndaw bi huwa moom ibnul madawi si doomu jàngalekat bi la al jadidu bees bi in laa feesalan ci fawaaxi ci bor bi weti fi maaye lislim mi ngi bindaatin naata allazi ba nga xamante ni bay na xaw say diggante ñaari rëddi baada taxli baada taxli baada taxli taxi gannaaw ba nga takke bil bil bil bil bil bil laami ci bi al ci al ind zulumi ah, zulumi su waree am al luzum la àndal luzumi ci ah, ba mooy am al aynal mudarrisu ana jàngalekat bi danga fay teg naatu naatu bi bu amee al rek danga fay manoot bi bu amee al rek naatu bi dafay am al aynal mudarrisu ana jàngalekat bi jadidun bees bi bu dee manoot bi am na al rek naatu bi dafay am al ataaji bi commerçant bi fi suuq mi ci biir marché bi kabir mag mu ne ana man taalibun taalibala jalasat ana man taalibun taalibala qadimu ko bu yàgg jalasatan taalibu taalibin xalfa Muhammad si gannaaw Muhammad jëlidu jëlidu bu bees mu ne man man wala man wala du xale bi kan allazi ma xamante ne xaw a jigéen al aana léegi mën a fas jigéen si classe bi tawilu bu ndool mi amma amma wala doon xale la xosiyun gàtt faysanu faysal tabib docteur la shahiyun bisiw liman haza sayi lima haza sayir kan moo moom laaj bi maksuun buñ dam maksuun buñ dam haza qalam bi bi maksuun buñ dam la ana sikkin ana paaka bi xaadun bu ñob mu ne wëddi diggante wëddi yi mu la defal nii yaa fi teg naat bi man naat bi bu amee àll naat bi dafay am àll waaye bu amul àll waaye man naat bi bu amul àll naat bi du am àll liman hazihi sayaatu kan moo moo oto bi jaminu bees bi mu ne ko jàngal Euh, école jàngal taalibe taalibe bi allazi ba nga xamante ni allazi yëpp daf ko manqué allazi allazi yëpp daf ko manqué allazi moom ismu mawsul la mooy ismu bu dee xamalo boo ne ab taalibu taalibe jigéen bu xam ban taalibe nga bëgg waaye boo ne ab taalibu lësi taalibe ba nga xam ne moom dina xam ban taalibe nga bëgg wax ab taalibu lësi taalibe ba nga xamante ni xawle génn mi na fas jóge si classe bi al'aani léegi min Indonesia mi jóge ko Indonesia al kitaabu téere bi allazi ma nga xamante ni alal maktabi min si kaw taabal bi len mu daw si ñeel na len mu daw si ñeel na jàngalekat bi man haazal qalamu kan moom bi aljamilu bi bees bi allazi ba nga xamante ne ala maktib min ci kaw taabal bi aljamilu bu rafet bi allazi ba nga xamante ne ala maktib min ci kaw taabal bi li man li man albaytu kër gi albaytu kër gi alkabir mag bi allazi ba nga xamante ni fi zalika shaara min ci bi mbedd bële lil wazir ñenn ministre yi الصغير الضال الذي ما قمتني في غرفة منتي بيسال في غرفة خالد المسي سالو خالد مكسور من دمنا هنا بيت kaw dafa def baytun ma defal la manawtu ci suuf ma def jizitun defal la naatu ci suufam loolu jàngal na la manawtu bi amee al naatu bi dafay am al waaye fii boo seetloo na manawtu bi amul al moo tax bi du am al naatu nag dafay topp naatu dafay topp manawtu si juróom ñett yi daf koy topp si nasab daf koy topp si rafaa daf topp si jasam daf koy topp si jar daf koy topp si maarifa daf koy topp si nakira daf koy topp si ah, muannas daf koy topp si muzakkar naatu jàppal ne bu manaat bi nekkee jigéen day nekk jigéen bu manaat bi nasabee dafay nasab bu manaat bi rafaayee dafay rafa bu manaat bi jasamee dafay jasam waaye bu jaree dafay jar bu bu nekkee nakira dafay nakira bu nekkee maarifa dafay dafay nekk naat bi dafay nekk maarifa maarifa mooy leen xam euh, nekk mooy lu xamul bu nekkee jigéen dafay dafay nekk naat bi dafay nekk jigéen waaye bu nekk góor tamit naat bi dafay nekk góor kon baytun man'ut la jadidun naat la alkalimaatu jadidatu baat yu bees yi almaktabu almaktabu taabul bi la ana almay waxatu fantuloo al almustawsaf clinique almustawsaf si jàngalekat bi asanawiya ñuy defee bac école bi ñuy defee bac classe bi ñuy defee bac kon alwazir de alwazir de ministre cheion siw xaadun lu ñaw bat yi nga xamante ni jàngoo ko ci dars bi moom la la jox fii kon yeneen jotoon indi ci dars tay bi lu si jub si yàlla lu si dëng suñ gàtt xam-xam la ak suñ yeew xam-xam in uridu illa islaaha ma stataatu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته